waa tiis bi de c'est ndox mi ndoxum taw bi la ndoxum ONAS bi la plutôt sax laay wax moo moo feesal mbedd bi euh, ba mordom am ci daal loolu te il se trouve que ni ki gaañu sama takk la looloo loolu daal moo fi tiis bi daal. mais taw xam nga daal na taw mais daawul daawul daawul inondé nii lii boo leen xoolee sol bi nii xam nga ni lii buu la. ndoxu taw kese ndoxu taw dafa dafa sell dafa set amul buu donc lii ndoxu ONAS la ONAS moo ñu causé toor bi moo waral euh, affaire bi am daal. est-ce que ñoom alerté ngeen ne ñoom waa ONAS wax leen na ku jot a ñàkk bi nga waaw waaw day day arrêté alerte def naan alerte bi waaw ñoom day directeur bi nee dina fi ñëw ultérieurement xaw ma exactement ban jour parce que bu ñuy ñëw dañuy woote il paraît donc xam nga ñoom seen i affaire administration seen wax daal moom jërul dóori xale. waaw. ce que mën nañu mën euh, naka la mbir mi demee taw mee ko euh, taw mi la ndax miir bi daan ci kaw. mais xam nga xam nga loo gis am na cause ndoxum taw bi d' accord mën na fi nekk mais taw bi kese kese mënul mënul yàq dara lu bari parce que yàlla yàlla li muy wàcc rek da koy xam donc lii dafa nekk ndoxu onage boo xoolee ndox mi ni mu mel ak pat bi ni mu mel nii xam ni lii buu la donc ndoxu onage mooy ànd ak buu di ñëw loolu moo indi cause bi du ndoxu taw kese. ndox mi moo ëpp doo daa ëpp doole miir bi mu ngi daan ci kaw moom da doon évacuer a ndox mi wala nu mu demee woon non jéem a ko évacuer parce que buntu kër gi dafa doon dafa doon jël dafa doon jël ndox ñu doon wut saaku pour def ko ci buntu kër gi pour protéger ko waaw pour ndox mi du fa jaar parce que miir bi moom wóolu woon nañ ko mais comme que ndox mi dafa bari te ndoxu ndoxu onage bi dafa diis parce que parce que eau usée la donc moom waral mu ëpp doole mur bi xam nga ndox dafa bëri doole moom donc fu mu jaar fu nekk la ma fa yàq day bari looloo waral looloo indi cause bi daal buntu kër gi ngeen doon def ay saako. miir miir bi fekk si ko. waaw miir bi fekk si ko waaw malheureusement mu ñàkk ci bakkanam quoi. waaw daal mooy kii jamono ji wax ak yéen ndax mën nañ xam ndax jot ngeen ci koor bi wala. non jotaguñ ci koor bi nag actuellement nii mais ni tout euh, incessamment ko denc quoi ci anam yu mu gën a rafete bi mbir yi xewee sapeur bi ngeen ko woo teel naa ñëw. waaw sapeur te sapeur ñëw na police ñëw na parce que xam nga bu dee affaire en d'accident il faut am procédure il faut ñu def constat sappi door a enlever nga door a hôpital après ñu def autopsie yooyu parce que procédure moo demee noonu daal looloo tax loolu lépp def nañ ko moom waaw.